merci d'être avec nous chers téléspectateurs jaajëfal nañ leen heure bu baax bi tey moo nar a nekk jeudi euh, tey mooy jeudi 25 euh, mars 2021 mu nekk bis bu am solo ci Sénégal bis bu sénégalais yi dootul fàtte wala fépp fu jullit nekk ci àddina bis bu ñu dul fàtte la ci kanam dinañ ci ñëw ndaxte réseaux sociaux yi am na ci taxawaay bu am solo di leen jaajëfal min ngeen heure bi heure bu baax bi gannaaw journal bi di jaajëfal bu baax Euh, internautes yeeg euh, téléspectateurs yi di jaajëfal aussi Fatou Kiné Dem mi nga xam ne moom lañ doon àndal ci xibaar yu digg bëccëg bi jaajëfal bu baax waa rédaction bu euh, télévision Futur Média ci jàppandal gi mais surtout internautes yi aussi réaction yi bari na commentaires yi bari na gis nañu message yëpp même si après émission bi du jàll quoi ci kanam dañ ci dañ ci dañ ciy ñëwaat di surtout ñu ngi leen di suivre ci réseaux sociaux yi que ça soit mu nekk Facebook Twitter wala Instagram mais surtout hashtag bi nga xam ni miin ngeen ko léegi muy sunu net di Facebook di Twitter di Instagram bref ci réseaux sociaux yëpp yéen a ngi koy partagé commentaire bu ci nekk ñi ngi koy jot ñenn ñi sax d'ailleurs dañuy inbox quoi inbox mooy message yi nga xam ne message privé la ngir wax ci émission bi mais surtout di wax ni ñi ngi gis message yëpp lépp li nga xamante ni comme ay question la wala ay euh, image yoo xam ne dañ ko fi partagé te d'ailleurs yéen internautes yi wax naa ko émission bi li xew ci biir internet ñun ak yéen la c'est interactive message yi ngeen di partagé yépp ñu ngi koy gis d'ailleurs la preuve am na benn boo xam ne benn papa moo ñu ko partagé loolu jaarale ko ci réseaux sociaux yi ñun tamit ñu daal di koy euh, partagé te loolu dafa nekk lu am solo loo xamante ni démb ak tey daal ku nekk naan ñu image bi ñu gis dakaar lii euh, ville la woon euh, voilà ñenn ñu ci bari commentaire ñi naan rond point G2 la moo ëpp na comme message ndaxte d'ailleurs bi ñu laajtee effectivement rond point G2 image bi nga xam ne bàyyi woon nañ ko fi démb nag wax naa ko émission bi émission mag ñi la émission xale yi la ndaxte liñ ci jàng wala ñi nga xam ne mën nañ ko ci forêt néew ci partage mais surtout ci xam dafa am solo ba ñëpp koy suivre heure bi mag ñi eh, dañuy toog nee nañ dañuy wàcc añ ñi wala ñenn ñi dañuy eh, sax tiim seen boolu añ heure bi moo tax ñu duppee ko heure bu baax bi dañuy toog di jàkkaarlu bu baax émission bi ndaxte dafa am solo li nag ñu def eh, ñu wane woon dem mooy image bi nga xamante ni gis nga bus bi ça date de très longtemps xam naa année 80 la wala 70 peut-être xale yi 2000 xamuñu ko quoi lii rond point G2 la effectivement rond point G2 la ndaxte mooy comme ni ngeen koy gisee ci image bi nii euh, démb nag dañ ko fi partagé woon ñëpp di commentaire ku ne naan fii la fii la duñu ci choisir kenn di ko yóbbu ci jili mais am na beneen image boo xamante ni beneen internaute tey la jeudi xam naa dañ ko fi bàyyeeg vendredi samedi dimanche ba lundi ñu commentaire ci mu ne euh, kan moo nekk ci ginnaaw image bi nga xam dañ ko caché derrière maanaam dañ ko nëbb ci ginnaaw am na euh, nit benn photo koo xamante ne ku am solo la ci réew mi. duma joxe benn indice eh, mu ngi ci biir léegi commenté leen yéen internet yi baaxoon nañu chaque jour wala benn yoon ci semaine bi ñu daal di démarrer ak benn image boo xam ni yéen ñu koy partagé ñun ñu waxtaanee ko ak internet yi ak téléspectateurs yi lii nag wane leen ci seen xam-xam hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram actuellement nous sommes en live sur Facebook euh, ci plateforme Facebook bu télévision Futur Média ñu ngi gis commentaire yëpp. voilà commentaire yi ngeen di euh, seen message yi ngeen di joxe yëpp ci page Facebook bi ñu ngi koy gis ci compte yi ñu ngi koy gis ci sunu chaîne YouTube bi même bi jeexee commentaire yi nga xam ne dangeen ngeen koy euh, posté ci sunu chaîne YouTube bi ñi nga xam ne miinu ñu YouTube mën nañ dem YouTube def slash def TFM joxe seen ay commentaire ci li xew ci biir internet bi wala ci bépp émission boo xamante ni mi ngi jàll ci télévision Futur Média bi nga xamante ne mooy miroir du Sénégal miin ngeen ñu miin suñuy plateforme yi nga xamante ni moom lañ leen fi tegal ngir dara bañ leen rëcc wax naa ko. Euh, télé bi dafay mel ni réseau social wala une télé interactive maanaam am nañ possibilité seen ay commentaires ñu koy partager en temps réel te loolu lu am solo la image bi wanaat leen ko bu baax ndaxte internet yaa ngi nii di commenter El Hadj gis nga commentaire yaa ngi nii ku ne di wax euh, voilà image baa ngi nii euh, kii du ma joxe benn indice mais en tout cas gis naa ni gars yaa ngi commenter kii nee na comment télécharger le vidéos sur Facebook pourtant ñëwoon nañ ci loolu. ñun changement dinañ ko waxaat dinañ ci ñëwaat peut-être semaine prochaine ñëwoon nañ ci naka la ñuy def ba télécharger video ci YouTube wala ci euh, Facebook wala ci bref ci réseaux sociaux yi muy Facebook di Twitter wala Instagram am na plateforme bu simple boo xam ni wane woon nañ ko fii euh, ñëpp di ko ñëpp jàng ci wala ñëpp di ko télécharger ngir mën a télécharger vidéo yi ngeen di gis parfois mu soxal leen ngeen góor ko gën a mën a partager ndaxte jamonoy partage la ñu nekk peut-être ñu ñëwaat ci semaine prochaine mais am na beneen question yi nga xamante ni internaute bi eh, wala internautes yi ñoo ñu koy posé saa su ne ñu ciy tànn benn jox leen ay explication ci kanam di dinañ ci ñëw ak question bi nga xam ni benn internaute posé na ko ne eh, naka la ñuy def ba eh, liir benn message bu ñu supprimer ci WhatsApp ci kanam loolu nañ ci ñëw am na solo ndaxte parfois sama genre gi damay bind message WhatsApp rek daal di supprimer te pourtant am na beneen possibilité boo xamante ni. wala benn plateforme wala application boo xam ne boo ko téléchargé sa téléphone message yi ñuy supprimer yëpp mën nga ko am donc ñuy vérifier di def ndànk balaa ñoo jàllale message yi ci réseaux sociaux yi loolu dafa am solo te lii ñuy waaj a wax mooy euh, plateforme bii ñuy waaj a joxe comme astuce tey ci bis bi dina baax trop ngeen am ko moo tax dafay baax ci euh, boo leen euh, amee message yi nga xamante ni da ngeen koy jàllale muy audio ci WhatsApp yi xool leen bu baax ndaxte loo supprimer mooy li ñu koy waxee rek wala ni ñu koy baaxoo di waxee rien ne s'efface sur internet loolu dafa baax ñu koy xam ko donc lépp lu waay def ci internet na ko xam bu baax mën nga dem ci sa sa ay génération génération ñu naan leen seen maam yi wala seen euh, mag yi fi nekkoon seen kilifa yi lii leen fi nekkee woon donc lu waaye di def ci biir réseaux sociaux yi wala internet na ko xool internet nag dafa ànd ak actualité wax naa ko sànq démb ak tey euh, ñëpp a ngi partagé euh, photo wu kilifa gii may gis may waaja a ñuy waaj wone muy euh, El Hadj Malick wan ñu ko voilà kilifa gii nga xam ne kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal euh, Serigne Babacar Sy wax naa ko xale yi judd ci ginnaaw mbay pourtant la plupart ñoom ñoo koy partagé xamuñu mbay waaye mbay la ñu gëm nekk na euh, image bi nga xamante ni ndaw ñi démb ak tey ñëpp a ngi koy partagé ndax bis ni tey le 25 mars 1957 la génnoon àddina mu nekk bis bu tiis waaye tamit bis bu nga xamante ni euh, kenn dootu ko fàtte ak léegi nag mat na 64 ans ñu koy fàttaliku moom euh, doom El Hadj Malick Sy bi nga xam ne bi mu amee ci 72 ans la euh, génn àddina defoon 35 ans ci xalifa gi 1922 euh, ba 1957 nekk ay at yu bëree bëri d'ailleurs statut WhatsApp yi Facebook Twitter wala Instagram ñëpp a ngi partagé surtout ay waxam jàngaleem mais surtout yoon bi nga xamante ni moom la tegamu yooku yoonu Cheikh Ahmed Tidiane yoonu Tidiane bi mais surtout yoon yu am solo yi nga xamante ni digle yi ndaw ñi xale yi nekk juddu ci ginnaaw mbay ñu ngi ciy jaar am na ay vidéo yi nga xamante ni dañ ko colporté rek daal di koy dajale muy statut TikTok yi ci Facebook yi ci réseaux sociaux yi en tout cas daal di koy partagé ñu dégtal leen waxtaan bi nga xamante ni euh, maam Abdou Aziz def na ko ci euh, Serigne Babacar doon ñu gën a xamale ak moom. ak ku ngeen di bakk Serigne Babacar pour lan mooy ki ko yooyu. ah ci man tuus leen te bakk ko moo ko yeyoo lu tax ma ne daan sajji gaa ngi te moo di mbër mi ko jàpp beneen vidéo bi mën a envoyé sa whatsapp dina jàll dina mën a jàll voilà mooy bu vidéo muuru xam ne bi benn ku jaajëf euh, moom ñoom ñaar ñëpp yal ñu yàlla taas euh, seen barke muy maam Abdou Serigne Babacar Sy euh, ci njàngale mi may surtout yoon yi moo tax yàlla ñu yàlla fayal suñu mag ñi muy vidéo yi nii rek la internet di doxee tamit di fàttaliku image yi di génnaat xale yi du Pekovar moo tax lu waaye di wax na ko xam bala ñuy partagé waat ndaxte lii ay wax yu rafet la ndaw ñu war ci mën a gën a mën a jàng lu am solo la mooy nii message yi ngeen di gis nag ñu koy partagé muy Twitter muy Facebook muy ñëpp ngi partagé ay waxam mais surtout jaar-jaaru Babacar sii pour xale yi nga xam ne juddu nañ ci ginnaaw mbay gën ci mën a jàng historien ci Twitter rafetlu bu baax euh, taxawaayam ni mu koy defee ci kilifa yëpp saa su événement yu ni mel amee ñu ci bëri di ci jàng mais euh, tamit euh, ñeneen ñi nga xam ne ay tweetos lañu comme ni ñu ko waxee Lamine mi partage yi ñuy def tamit am na solo ngir ñi nga xamante ni ñoo nekk ci réseau social bi di ci gën a bàyyi xel waaye ndaw ñi gën ci mën a jàng lii lu am solo la loo xamante ni baax na am na benn internet bu ñu envoyé léegi benn vidéo TikTok kii xaw ma kan la gis naa ni lu am solo la ndaw ñaa koy partagé ci réseaux yi rawatina TikTok. doomam jaa ngi nii muy Seydil Aboubacar si radiyallahu taala anhu ku nekk war naa xam ni mois de mars bii lu rëy xew na ci ndax yamul sax ci taalibe cheikh yi képp kuy murit wala ngay tiijaan baa ngay xaadar ngay laayeen ak foo mën a bokk ci tariixa rek yaa ngi def publication ci Seydil Aboubacar si sunu maam ji doomu maam Roqaya Njaay jaa ngi nii doomu Seydil Seydil jaa ngi nii ndeysaan góor gi la sunu baay Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ñëw la 25 mars en 1957 dugg ca néeg ba ndeysaan di seet baayam dugg fekk ak leer gu mag jóge ci jëwam bi fëkk plafond bi di dem mu xam ni góor gaa ngi dem te dootul ñëwati ndax xam na ni leer gay dem barzak la jëm muy sunu maam ji du jóge ci sunu xol yi mukk dañuy sax ci di ko bëgg ba keroog ñuy dem di ko fekk ji yàlla na nu bokk ak yow appartement ci àljana mi ngi noonu amin ci ñaan ñooñu ñaan ñu am solo la kooku xaw ma kan la mais gis naa ni daal dama gis ci suba ba tey ñëpp a ngi partagé eh, vidéo comme tant d'autres ah, bari na ci ay ndaw ñi nga xam ni partagé lii lu am solo la moo tax it dafa bokk ci émission bi li xew ci biir internet dafa tey bés bi eh, borom bés bi wuy na turam comme ni ñu koy waxee Euh, Serigne Babacar si al Khalifa euh, bis ni tey la génnoon àddina 25 mars 1957 de 25 mars 2021 64 ans boobaak léegi moo tax euh, ci réseaux sociaux yi foo laal rek muy statut WhatsApp di Facebook di Twitter di Instagram foo laal ba ci YouTube yi ñëpp a ngi partagé ay photom yal nañu yàlla tas ci barkeem am na keneen koo xamante ni bis ni tey la génn àddina pourtant taalibe Serigne Babacar la woon ku ko bëggoon lool muy El Hadj Basirou Diagne Marème Euh, grand sëriñ de Dakar ñëpp xàmmee nañ ko bis ni tey la 25 mars 2013 la génnoon àddina ñëwoon nañ fi ak. kii kan la wala lii la la wane woon photo bi nga xam ne gënoon a nekk ndaw waaye koo xamante ni tamit référence la ci réew mi ci jaar-jaaram euh, kilifa gi mu doonoon mais surtout lu baax li ñëpp doon koy actuellement ñu ci bari di partager ay euh, photo ma ki jaar-jaaru kilifa gi nga xam ne bis ni tey euh, la génnoon àddina 25 mars 2013 loolu tamit dafa bokk ci internet rek mbirum réseaux sociaux yi waaye am na beneen vidéo boo xam ne xale yaa ngi koy partager rek jamono ji El Hadj mooy euh, su ma leen nee vidéo TFM la ku dégg musique bi rek du ma sax commenter acca elage euh, gars yi nee nañu euh, lii ku xalaatul loolu rek ngay dégg ci suuf noonu ku ko dégg rek sa yaram bu dawal lu la neex lekkal wala lu la neex defal ci diggante yi ndaxte xam ni loolu day wax nii fii ak ay fan rek ñu dugg ci weeru koor bi yàlla nañ ci yàlla yóbbu ci jàmm ndaxte lii gis naa ne eh, gars yi bëri di ma ko partagé d'ailleurs euh, di wax ni koor gi day annoncé ni koor gaa ngi ñëw ndax te lii boo koy dégg rek di nga sa xel dina fàttaliku euh, weer wu sell wi ñu jëm yàlla nañ ci yàlla euh, yóbbu ci jàmm ñu fekkee ko te tal ko am na solo ndax fa bokk ci internet ak réseaux sociaux yi ba yu bari bu ñu koy partagé gis nga régie bi ci bari ñu ci ñu ci bëri dañuy nekk ci ginnaaw ku nekk di commentaire El Hadj yi nee nañ ñu wanewaat image bi ñu wone woon sànq di laajte kan moo nekk ci ginnaaw photo boobu voilà mi ngi noonu am na ñu naan euh, ma xool euh, gis naa ay commentaires yu bari amadu Mokhtar Mbow gis naa euh, ñeneen ñi joxe yeneen tour <laughs> mais est-ce gis nañ image bu baax xool leen bu baax. xool leen ngeen commenté kan moo nekk ci ginnaaw photo bi wax naa ko duma leen jox benn indice dafa bokk ci émission bi am ngeen possibilité ah ñu commenté eh, hashtag bi sunu net muy Facebook di Twitter di Instagram ngeen commentaire bu baax xool bu baax joxe seen xalaat peut-être eh, ngeen defal ñu biographie baax na ci tamit waaw ndaxte kii kilifa la ku ñu respecté la ci réew mi àdduna wërngal këpp eh, commentaire yi bari na jusqu'à présent ñi ngi joxe mais gisaguma fi ba tey wala gars yi ko trouvé gum bareegul quoi li ma xalaat. ndax xooluma comment damay gis muy défilé nii rek en temps réel comme ni ngeen koy gisee ci écran bi réaction internautes yi bari na di leen jaajëfal ci euh, réaction yi ni ngeen ñuy encouragé wax naa ko émission bi ñu nag yéen la ñun ñoo koy préparé ndoo d'ailleurs moo tax dara du leen rëcc li ngeen di partagé rek ngeen gis en temps réel ci télévision bi mais surtout ci réseaux sociaux yi wala suñ suñu plateforme yu euh, télévision Futurs euh, Médias beneen bi am na beneen boo xam ne yi fi àddina laaj <laughs> ma est-ce que di nga envoyé photo yi nga xamante ni bon xale jigéen ñoo ko envoyé quoi voilà dañ ma yóbbante rek mbirum équipe nationale bi joueur boobu nga xamante ni démb ak tey mooy def buzz waaw seen crush la nee nañ expression xale yi nee nañ kii moo tax fi ne nii moo leen jaral ñuy seetaan match Sénégal yi voilà seen commentaire la jot naa ko muy seeni Dieng Euh, nouvelle recrue pourtant bi moo nar a nekk ñaareelu sélection ñëwoon na ci atum euh, ba Sénégal di jouer Colombie si je ne me trompe effectivement con Aliou Cissé convoqué woon convoqué woon euh, mu koo xamante ni pourtant c'est pas la première fois mu ñëw équipe nationale du Sénégal quoi mais peut-être gars yi dañ koy doog a découvrir moo tax démb ak tey ñëpp di posté photo mi ndax voilà xaw ma je sais pas pourquoi en tout cas démb ak tey daal mooy joueur bi gën a bi ëpp buzz. ci ci ci équipe nationale bi Seny Dieng mooy euh, gardien de but la nekk euh, Queen Park Rangers nekk koo xamante ni aussi euh, yàgg na ci ginnaaw di trempé peut-être voilà ñu koy souhaiter bonne chance ci ak équipe nationale bu Sénégal surtout ak sélection bi mu bañ a nekk sélection bi mujj mais surtout waajal match bi pourquoi pas mën a jouer demain match bi nga xamante ni d'ailleurs waxoon nañ ko ci euh, démb Sénégal fas yéene dajeek euh, Congo fële ca euh, Brazzaville mu nekk match bu am solo boo xamante ni ñëw dinañ ci ñëwaat suñuy xibaar yi mais surtout Sénégal di waajal match bu am solo donte qualifié na ba pare mais dina tax comme ni ko coach bi waxee mu xoolaat effectif bi bu baax donte dafa convoqué ay joueurs yu bari loolu am na solo mais prétexte bi mooy waxoon ci Seyni mii nga xamante ni démb ak tey dafa def buzz moom tamit te moo ànd ak internet El Euh, internet tamit dafa ànd ak ay bonne action maanaam euh, ñi nga xamante ne dañuy jëf lu baax di ko partager ci réseaux sociaux yi Euh, kii nag beneen sportif la muy euh, Astou Ndour bu euh, basket équipe nationale basket bu Espagne dem jël ay kit jël ay yu am solo yoo xam ne daf ko yóbbu fële ca prison bu Rufisque daa gaa yi daal di koy rafet rafetlu bu baax ci association bi mais liggéey bu nga li nga xamante ne am na ko ngir jàppale ñi nga xamante ne ñoo am jafe-jafe ak yoon fële ca prison bu Rufisque di ko jaajëfal moom tamit bonne action la wax naa ko seen ay bonne action am ngeen possibilité ñu partager ko gis ko téléspectateurs yi gis ko hashtag bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram yii boo leen ñu koy partagé da ngeen dem ci eh, suñu page yi plateforme yi def message bi def hashtag bi muy Twitter yëpp dinañ ko gis daal di dajale yi nga xamante ne ngeen koy def boo leen di set setal seen koñ boo leen ni def euh, joxe yu ni mel di dimbale néew di doole yi ñeneen ñi nga xam ne soxla nañu ñu jàppalante ndaxte loolu mooy defar réew te loolu gis naa ni ndaw ñi ñu ngi ci am taxawaay bu am solo surtout ci grâce aux réseaux sociaux ndaxte réseaux sociaux yi la ñuy jaaree di def ay appel ñëpp di wootante dajale li ñu am daal di koy dimbale ñi nga xamante ni soxla nañ ko te loolu lu am solo la ñun tamit ñuy def noonu comme wax naa ko télévision Futur Média comme réseau social daal loolu baax na ñuy partager yu ni mel di jaajëfal bu baax Astou association bi xamante ne def na jëf ju rafet ji ngir euh, jàppale ñi nga xamante ñoo am jafe-jafe yoon fële ca Rufisque voilà El Hadj astuce bi mais euh, am na je sais pas ba xam na am nañu temps bi des na 4 minutes 30 minutes la non stop astuce bi la internet bi demandé naka la ñuy ban application la ñu mën a dugg ba euh, mën a récupérer li nga xamante ni mooy message yi ñu supprimer sur WhatsApp dinañ ci ñëw ndaxte temps bi dafay xaw a xat lool mais dinañ ci ñëw euh, lundi incha allah ñu expliquer leen ko wax naa ko semaine bi yëpp dañuy dajale ay astuces yoo xamante ni dina leen soxal euh, ñu bari koy partager astuces yi nag da leen soxal plateforme bi plateforme yu ci nekk yoo xam dina leen soxal lool ngir ngeen di partager seen ay message boo leen ko defee ñun tamit dinañ ci jël daal di partager li nga xamante ni mooy seen ay questions di daal leen jox leen ay explication yu simple d'habitude ay experts sax la ñooy ñëw ñoo xam ne seen xam-xam gën na ci màcc ñu daal di euh, waxtaanee lii di astuce yeeg questions yi nga xam ne da leen soxal saa su ne yéen internautes yeeg téléspectateurs ngir ngeen mën ci jàng dara te loolu am na solo kii kan la wala lii lan la di remercier encore une fois sponsor. rubrique bi di jili CSB nekk rond point cité kër góor gi jili numéro téléphone am mu nekk ni 33 822 47 00 jili am nga euh, possibilité ñu am fa matériel électroménager lépp luy Samsung euh, iPhone ak lépp luy téléphone yoo xamante ni euh, high tech high géné nouvelle nouvelle génération la quoi téléphone yu bees fold bi am na fold bi am na fa Samsung S21 bi am na fa am na lépp loo xamante ni da ngeen koy soxla aussi ci ay kër. Euh, électroménager yi moom jili CSB am na ko di ko jaajëfal surtout ci kóolute gi ak euh, ni mu sponsorisé rubrique bii ñu duppee kii kan la wala lii la la démb nag am na ko ñu fi bàyyi woon koo xam ni euh, wax naa ko jigéenu référence la wax naa ko mois de mars bi dafa nekk weeru jigéen ñi moo tax weer bi yëpp jigéen ñi nga xamante ni ay référence lañ ci réew mi seen jaar-jaar dañ ci ñëwaat mais surtout rappeler seen photo démb indiwaat ngir ndaw ñu gën ci mën a jàng moo tax démb ñu indil leen kii di Aminata Fall Guy Garmi nekkoon koo xamante ni euh, kenn dootu ko présenté ci wàllu euh, théâtre rek euh, musique jazz nekkoon koo xamante ni aussi doomu ndar la juddu le 29 janvier 1930 génn àddina 24 novembre 2012 nekk koo xamante ni aussi kuñ dul présenté la ndaw ñu bari war a mën a jàng ci moom surtout ñi nga xamante ni ñoo nekk ci mbirum aar am na benn vidéo rek juste bu muy expliquer jaar-jaaram ñu tegtal leen ko ñu dëgtal leen ko daal di ñëwaat. day am matinée am soirée su ko defee léeg-léeg ma daan seetaan Louis Armstrong Mahalia Jackson Aretha Franklin Tino Rossi mi ngi noonu Euh, Aminata Fall carrière bu riche la amoon euh, nekk koo xamante ni ci euh, mbirum aar ak Euh, way gi nga xam ne yëpp mu ngi ci doon yëngatu mais ci mbirum jazz bi mais nekkoon ko xam ku ñu fonkoon la fële ca ndar ak Sénégal wërngal këpp ci ko jaajëfal wax naa ko mois de mars bi moo tax euh, suñu question yi nga xam ne lañu duppee kii kan la wala lii laal la ñëpp dañ koy euh, jagleel jigéen ñi nga xamante ne référence lañ ci réew mi jigéen ñi nga xam def nañ fi jaloore yu am solo ci secteur bu ci nekk wala ci domaine bu ci nekk ñëw nañ fi ay journaliste ñëw nañ fi ay artistes ñëw nañ fi ay historienne ñoo xamante ni aussi marqué nañu histoire Sénégal ci nekk ay jigéen moo tax dañ leen di sargal ngir Euh, gën a fësal seen nekkin mais ndaw ñii tamit gën ci mën a jàng réaction yëpp ñu ngi koy gis commentaire yëpp ñu ngi koy gis di leen ciy jaajëfal ap élagement rek wan leen kii kan la bu bees bi am na question bi waaw kii moom xam naa dafa mel ni yomb na nag pourtant jeudi vendredi samedi dimanche ba bi kii moom xam naa euh, dinañ am euh, dinañ recevoir ay messages yu bare bare bare bare ci internet bi ci wax naa ko li xew ci internet bi mooy seule émission boo xamante ni la avant la pendant ak après kii kan la hashtag ngeen di def def message bi wax ñu biographie am jaar-jaaramam indiwaatal ñu photo yu la neexee ngeen collé def collage quoi dafa ànd collage photo yu récente ci kii nga xamante ni euh, référence la moom tamit ci euh, Sénégal toujours ci mois de mars bi ñu nekk Euh, gën a sargal jigéen ñi kii kan la euh, commentaire yi nañ ko jot ci Facebook Twitter wala Instagram hashtag bi sunu net la ci Facebook bi actuellement en live gis naa internet yi ba tey di commentaire ku nekk di joxe sa xel tey sa xalaat ak sa message ñu ngi koy jot ñu ngi jot message yëpp surtout ci question bi nga xam njëkk nañ ko posé kan moo nekk ci ginnaaw <laughs> photo bi mais réponse yëpp nag dañ koy dajale tënk ko ba leen di incha allah ñu ñëwaat ci euh, indil leen ci gën leen ci indil loo xamante ne dinañ ci mën a jàng lu baree bare te loolu lu am solo la sunu waxtu yi ñuy jegleeloon nag jeex na di gërëm bu baax encore une fois suñu euh, ñi nga xam ne ñoo ñuy message di ñu encouragé jot nañu message yëpp ci euh, ni ngeen ñuy encouragé mais si jàppandal gi euh, di remercier encore une fois kii di Noreyni Couture moo génn fii numéro téléphone 77 280 80 85 Noreyni Couture 77 280 80 85 am na possibilité mu defaral leen yu gën a nice yi sax am Noreyni da koy da koy da koy da koy defar quoi di remercier encore une fois euh, suñu xarit wala suñu tante yeeg suñu mair yee nga suñu yaay yi nga xam ne ñoo ñuy message tata Ndeye Xaar Touré di ko jaajëfal ci message yi mais surtout jot nañu si euh, ñaan yi nga xam ne ñu koy ñaanal jaajëfal élagement euh, Hadj bi nga xam ne moo nekkoon ci réalisation bi mais surtout ak kii di Youssou mi doon monter éléments yi mais surtout ak ñi nga xamante ne ñoo jàpp ci ginnaaw ba lépp yemb daat leen di jox dig daje ba lënd ci beneen numéro li xew ci biir internet bi. Shake it, shake it.